ومولانا أبي العباس سيد أحمد التجاني وعن وارث سرهما وخليفتهما شيخ الإسلام سيدي الحاج إبراهيم نس يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد مبكي جروب soppe Cheikh Ahmad Dame maa ngi leen زيارة nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara ngi jox nuyoo bi mboolem koo xam rek نرنا دغلو جي وقتان وي ما شاء الله تي اي بن بن نيت كي غروب خوتنا سون كير غلدي باي انترناشونال نغ لين دي زياره والي بو باخ دنگا ما شاء الله ني نيو اك يين سي سين درسو القمس بيغا خامني موم لا ني نيو يين القمس بو ني كاشف الباس عن فائده الخدم ابي العباس يوم ما توب مانشي 27 page بيت 27 شيخ الاسلام مولانا الاج ابراهيم رضي الله عنه نيوغي تولون في ميكس بليكي والو طريقه الرياضه دنگا باين قال واخنا الشيخ ابو عبد الله ابن عباس ما واخ من وليس نك طريق تزكيه النفس يونو سلل بكن نكت بقطع جميع الارفاق ci dog mboolem ànd yi ànd yi ngay ànd ak yu mel noon nga dog leen an haa ulis ko raddaha ila al icraar nga delloo bakkan bi ci baamu mbaamu mbaamu maanaam comme koo xam ne rek mbaam la waaw bi aklil xachis ci di lekk ay mboob wa naxaalati ak gajji tàndarma yile dégg nga wal mubalagati ak ëppal fi taqash fi ci terehu ci yu neex yi والتقلل لأجد النيول مع قطع النظر عندك دك جس عن أهوال القلب جمير قلبي وهم مياك أي تيم وقصودي أك أي جبلوا وإرادتي أك أي نم تيفم وترك التفات أك باي جيسو إلى ما يمدح وچا جم چلا اللي تق منها چم وما يزم أك چكر دانا لنغاني جسنا يي fa dalika yi kulli yëpp xuluun ëppal law bidaatun ak sos yu ñu sos dégg nga ko yëpp jotewut ak dara pour war a taskiya bakkan bi bakkan boo koy taskiya duur ne da koy xeew ci yii da koy ba wan ko yoonu dëgg ak njub moom mooy dem ba yan lay du mooyo yan la ko mu ne na waqat xalata jaxase na fi hada ci lii tawaifun min an naas benn kuréel ci nit ñi amilu ñu ngay def ci moom fi riyadatihim ci seeni riyaada wa mujahadatihim ak ci seeni góorgóorlu walam yaqsudu te jubluwuñu bi dalika ci loolu ixlaasul ubudiyati sellal ak jaamu li rabbihim seen borom lii am na ñu koy def te def gëj koy def jubluwuñ ci sellal seen borom subhaanahu wa taala ci jublu yeneen dégg ut xaalis ولا ينمل دغوكو فاداهم دال دين جوخ نك دال دين جوبل ذلك لولا الى اختلال عقولهم جم سي جخس يقسن قلي دغوكو يقسن قلي كومبليتمون دغوكو ديسان وانحلال دغوكو قوا ابدانهم اك لونكل دولي سن سيني جمو دام با يق سن دولي جمو te walam yaxsulu te egguñu min amrihim ci seen mbir ala faidatin ci benn benn njëriñ am na ñoo xam ne ci lañ ne yàlla taxut fan la leen yóbbu day yàq seen xol yàq seen jëmm ji te duñ egg ci lañ jëm kon bu fekkee ne ki koy def dafa ne tazkiya nafs li ci jublu du yoon woowu dégg nga ko loolu la la bëgg a wax mu ne ko daalika te lii nag li ci seen ak réerée dong la bi sunnati ci sunna wa kaana ak la nekkoon na alay coom salaful ummati ñi jitu ci xeet o muy ñi gaay di wax salafu salih loolu dong la motax cheikhul islam maulana alaaji ibrahim don wax ne Baay wax nako radiyallahu anhu ci ben wax mune mune wa tashdidul mutafaqihin li bu'dihim an illahi wa illa fal amru sahlun mune ne ak ñi ñi wax ne ay faqihu lañ dëgëral gi ñi dëgëral diine du dara لودو تي دا فاي تكتال ني دايون سوري الله واو باي ني وال محدث المحرم ما يميت سن لي ني سوس لو خامن دا فارام موي لي خاو دا فمانا راي سن لولو كوت افير بي جيت دغرا يين دغرالي من وقال واحنا ايضا بتاي ابو المواهب يو ابو المواهب السيد العربي بن السائح السيد العربي بن السائح من قم شرباط برام قم قم بو بوبو ishara muniyatul murid fil jawaab ci tontu fil jawaabi shaafi ca téeram ba ñëw al jawaabu maa loo xam ne nassuhu yaxam mu ngi nii waaw yax ba lan la mu ne ibnu arabi dafa ne wal qaa'imuuna way taxaw ña bi aabaai tarbiyati ci mbiri tarbiya fii tariqatinaa ci suñ tariqa bii walhamdulillahi ñu ngi sant yàlla ñooñu kasiiruuna ñu bëri lañ dégg nga ko mu ne lam yaxul minhum wetu ci ñom munzu tofa sayyidina sheikh radiyallahu anhu dippi bi sayyidina ahmad tijani radiyallahu anhu kene aduna manam amuñ diggal je manam digg bo xamne dañuy wax ne digg bi jamono ji kuy tarbiyewaate amu fi loolu amu loolu moy lam yaxul minu waaw wéetut ci ñom mu amul de radiyallahu anhu mu ne wéetut ci ñom qutrun ben dingre wala zamaanu du caageen ben jamono waxtu wu ne rek ñu ngi fi ñu ngi tarbee jaam yàlla yi ñu ngi leen daawale ci yoon dégg nga balli am kay zahara feeñ na minum ci ñoom adadun ab lim fi xayaatihi ci dundam moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu illaa annahum lu dut ne nag a ñoom nag laa yatadaharuuna duñu feeñoo bi zalika ci loolu waaw limaa ci li nga xam ne laa yax faa du nëbb min xukmil waqti ci atteb dégg ko atteb jamono boobaa nag falaa yaish du fakkatalu alayhim ci ñoom illa man qayyada allahu taala lu dut ka nga xam ne yàlla tënk na ko rek jéng ko lahu ñeewal ko lintifaayu jëriñ biim ci ñoom rek mooy fakkatalu daanu ci seen kanam rek ñu defar ko waaw waaye ku dut kooku rek duñ ko mën a gis ba koy defar ku kooku duñ ko mën a gis defar wa dalika te لما خصو غير لاني جاغو بي هي تي مومي بركاتي استاذيم استاذ سن جيت من حاله الكمال تي حاله مات المسمى بدا بنتدو عند المحققين تي ناي دوخ حقيقه من اهل هذا الشان سي نون مير موي نون معرفه نون وصول بالغيره تي بيرانغي على الحق تي دغ تي يالا كو تولو فير تي يالا دا فلاي جاب با لولو gis nga wax ji danaka mo firi wax ji bay doon wax ne Cheikh Zarruq wax nako ne Cheikh sëriñam Abul Abbas al Hadrami mom moko wax ne tarbiya ji na mu ne gis nga gay yi Ibnu Arabi saa di wax ni fiñ ñu ku fa toll rek da ngay fiir ci yàlla parce que gañi dañuy fonto yàlla nekkuñ ci yalla deug deug deug nga moo tax mu ne bil ghirati ala al haqq wa hiya ta mom kitmanu sarairi moy nëbbu rañani ni wal wala ak mbodi rañaani ni mooy ni ñuy doxee ci yàlla seeru ilallah wala asraar yi ak mbóot yi ñuy dox dajeeg ci biir dox booba dégg nga wayetoo loolu xaalatul axfiya mooy xaalaab nëbbukat ya al abriya al abriya ñay way dañ dégg nga ko dañ ba jeex takk min al malaamati ca yeddaange al majhulati ñañu réeree xaqaiqahum seen i xaq seen i dëgg dëgg dëgg dëgg falaa yadharu du feeñ minum ci ñoom amrun mbir yaarif boo xam ne ne bii ci ñoom anna lillahi naka ñeel na yàlla inaayatun ndimbal bihim ci ñoom li annahum ndax ñoom jaaruuna ñi nga dëkkandoor a maal amati ànd ak am ya dégg nga ko ñoom waxtu ne rek dañuy jaxasoog ko ala maale yi ca la ñeel ko ala amatu am min zawahiri taati topp yàlla yu feeñ yëpp ñu ngi ci ànd moom dàq ko ko lool ëllëti yoo xam ne lam tajëril aadatu dawut aada jiñ xam am yu sammu biha ñu tudd ca min ahlillahi taala ci ñooñ yàlla ñi maanaam am ni muy jaamoo yàlla dafay dem ba jaamu yàlla gi nekk di yàllaam waa ji nga xam ne kii di ibnu arabi sahih di lum la daf cay nekk moom nekk ceeg moom bañ yaakaar ne sax moo ko raw ca loola te moom am na beneen mbànd mu muy naanee te loolu yëpp defut ko lu dut dégg nga ko lu dut pour di nëbbatu rek mooy la bu sayri waxoon ci sëriñam abul abbas il mursi wane ne xat naa la gaayata maa yarumul muntahi min rabbihi wa lahu jihaadul mubtadi jot na ci boromam dayoob liy utkat di jot te saa yoo ko gisee rek mi ngi mel ni koo xam dafay door di door yaa ngi dégg utkatab yàlla su fiyanke dëgg nii lay mel mu ne lii amrun mbir la dégg ko aqaamahum boo xam ne taxawal na leen allahu yàlla taala yàlla mu koy mi fii ci moom waaye wa fadilatu xulaawum ngëneel ak seen bi ma chaaru bihaa ci moom chaaru mooy yëg nañ awalam ye chaaru wala yëguñ loolu mooy ngëneel ak seen colka ci jamono jooju waxtu wu ne rek maanaam ñoom la ñuy maanaam la ñuy ànd ak gaañe di ko def ñoom yëg-yëg yañ cay yëgee ak yëg-yëg ca yeneen ñeneen ñi di yëgee du bokk ay ca am yi di yëgee du bokk nooy xamee ne yëg nañ ca yëg-yëg yooya mooy simaawum fi wujuuhihim min athari sujud ku mën a gis rek moom mooy gis loola dégg nga loolu la wa qaala wax na aydan ba tey kama fil bughya comme ni ko indee moom ibnu arabi saaya ba tey moom la bàyyi di wax ne wax na sa bughyatul mustafid baada kalaamin gannaaw wax mu ne wa muxasilu hadihi al masala ku yegg ci masala bi nag na anna hadihi tariqati al muhammadiya naka tariqa cheikhu tidiane bii mooy tariqatu al muhammadiya yujadu def na fekk fi afraadiha ci ay benn benn man ko xam ne yaftaxu lahu danañ ko ubbil fi tarbiyati biha ci muy tarbiya dégg ko jaami yàlla ay bi talqiini wirdiha mu ne mën a joxe wirde وجميع أذكارها أقبولهم ذكرينه كي تاريخه بي بشروط الشرطة المشروطة يدين شرطة والكيفيات أجنكا المضبوطة يدين المضبوطة تطن يدين دخن بهذه الشفافة قبل لا يخرجوا لكن دجن مك عما حده تلنكو ديالل نكو فيلن ورهم الشيخ سرين في ذلك تلول مما تلنك قبل تلقاه جلينكم شيخ تجان عن النبي تشيرون تبي صلى الله عليه وسلم لأنها نخمم طريقة طريق يون لمحمدية بيكو جوك محمد أعطاها وقم نجوخ نكوك النبي صلى الله عليه وسلم ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم للنبي للشيخ شي شيخ تجان منو مجيجي تيونو إلي جم الشيخ وضمن مقارنة لي لي أن طريق ما ضمن ولم قارنة من الأسرار تي أي والخيرات أك أي والبركات أك أي بركة دعوكو كنا قم lii uute na ak lële ñu nekkoon doon wax parce que tariqa bi ku ci ne dañ laa garanti ñaari docteur moo am docteur boo xam ne dafa lay seet boo ñëwee bu la seetee ba pare lala dal yëpp sax du ko mën a gis waaye lam ca gis lay jël benn kayit dal di bind ne yow demal fële nga jënd ay garab nga dem naan toog ñu xam ndax danga nga yoram doo yor waaye beneen docteur yi boo ñëwee ne ko da feebar mom du la wax dara daf naa la xolal ni may doxee ak diko waxé rek bu yagge nga wér dégg nga ko docteur bobu moy docteur tariqa sidi ahmed Tijaani bi kon bo xolé benen docteur balé ci yenen tariqa yele lool rek lay niru dégg nga ko bàyyi wala sabila det yon nak ila al khuruj jëm ci génn amma aataahu ci la jox nako ko annabi yunus bi sallallahu alayhi wasallam sallam wa tarattaba te mu toftaleel ko damaanahu garantim alay ci moom fa fam zalika déggal wax ji bu baax ko déggee rek mën na jural njëriñ yaa ngi dégg kon nag fafam daalik wa fi hada al qadri ci dayo bii alladi ba xam ne nabbahnaa alayhi ci lañ ñu ee min daalika ci loolu hunaa fii nekk na fi kifayatun lu doy sëkk wallahu yàlla waliyu tawfiq moo da aji dëppaleeg topp wala hidaaya dégg nga ko ak juble yàlla rek moo mën a dëppaleeg nit ki topp dégg nga ko ak juble lii mooy darsu ñaareel darsu darsu bi nga xam ne moom lañ leen doon indil ci كاشف للباس عن فائدة الخدمة أبي العباس لينان يا الله مهمني دكتور توفو دفعني توفيق لتشيل أرتشبا ميلون وخير تشيل أمني لجيت شنوبي لتشيل ندم كيكون جيما جاتو ليلا تامو كم كم إن أريد إلا الإصلاح ما ستعات وما توفيقي إلا بالله سنبوك أحمد دام يانغلا سنغامبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته